jërë ngeen jëf El Hadj Ibrahima Sall xëy na wokkal Sénégal fa muy xasan la économiste ba teg na baaraamam fuy miti bi leen l'observateur tëyeer ko El Hadj Ibrahima Sall économiste bi philosophe bi président UPOA ministre plan ci jamonoy Abdou Diouf moom la waa l'observateur xëy dalal mu ne leen kilifa yi réew mi lu leen dal rek ñàkk xam fu ñu teg seen tànk moo leen ko yóbbee dañuy jeexi jaaxa di làmbatu naan fii la ak fële la seen temps yëpp fa la des retarub ñaari at mu bu amee ci doxalinu plan Sénégal émergent ku yóbbu seen réewum Sénégal ne gaddete ki bor endettement bu toll ci 52 pour cent wàllu croissance du BITS économiste bi nañu moo croissance doomu aadama ñoo yem léeg nga gis nit ku rëy ak wéram moo ko koy may waaye léeg-léeg nga gis ku funki ba jaare ca dee El Hadj Ibrahima ne waa l'Observateur moom deful politique ngir làqate ràngam wala muy wut fu mu làqato jubluwu ci ab defante di règlement de compte la tribune nañu ko bëgg a gis ab defante dëgg del déglu waa Parti Sénégal ñoo ngi ci seen moo di groupe parlementaire opposition ndax ñi fare ci kujje politique gi daje nañ démb ci seen biir ca siège bokk gis-gis ca daje ba waa parti démocratique Sénégal ñoo nga ca woon parti réew mi bu Idrissa Seck waa bokk gis-gis waa ànd jëf PADS ak waa FSDBJ la ñu fa doon waxtaane moo di nañu taxawale groupe parlementaire opposition bu mag a mag le quotidien nañu kujje politique gi booloo nañu def benn ab dànk doon bolok nak benn kurpañ jëmee ci Macky Sall direct info ne ko ndax dina yombee noonu a baax di daas ay ngànnaayam di waajal bi ko war a Sénégal yéen a kaay bi dañu moom Macky Sall tey ji war naa daje ak député Benno Bokk Yaakaar yi kan ci député Benno Bokk Yaakaar yooyee di honorable député Seydina Fall mi bañ ko laal Macky Sall xëy na ci l'Observateur xëy ci waa Parti démocratique Sénégal yi doon wax naan muy Macky Sall di ak gouvernement dañoo war a teg ci ndombal tànkam ndax la xew ca mun na mu di jëyee joojee dafa feeñal seen tële honorable député Seydina Fall Bougazelli nañu waxi bàll puy de yooyee gars yi Parti démocratique sénégalais yi doon wax dafay firndeel ne gars yi àndatuñu ak seen xel nekku ci mel ne Babacar Gaye ak Amadou Diarra dara bëgg a jël la woon ci mun na naan ñoo ngi koy politiquer nit kuy foo war fee bàyyi ñi dee mu tegal ñu ci it dara tiitalu leen lu dul Macky Sall ak ni muy doxalee fu mu dugg am fa ndam Macky Sall ngi defi jéego ci wàllu koom Macky Sall ngi ngi defi jéego ci wàllu diplomatie fu mu ca jaar ba jàll rek dégg gonga député Seydina Fall ne ci kujje politique gi lii mooy li leen tiital Walfadjri nañu moom Macky Sall jàppale ko ci wotey présidentielle tey mu dakk ne kii di Khalifa Sall candidat lay doon ci présidentielle yi di ñëw am nañu ci takk bu wér Idrissa Diallo maire bu Dalifort moo ko wax ba waat ko te bari na ay socialiste yoo xam ne loolee la ñu mu di Khalifa Sall doon candidat ca la dox guddeeg bëccëg Rewmi Quotidien ñu fi ñu nekk nii Khalifa Sall jekk na bu ñu ne woon wotee présidentielle yi suba la xaaf na leen ay ca am na génn kuréel goo xam ne keroog samedi la ko sos ca diwaanu taxaw kuréel googe mu di kàppe ñu war réew mi ngir campagneal xalifa Sall ci biir askanu Sénégal ujaaji Sénégal ya tàgga témbe ca Makka mer nañu ba futt le témoin nañu ko weddi laajal Amadou Tidiane Dia mi commissaire au pèlerinage ba mu fa demee doon nemmeeku ji ujaaj ya tag ca Makka ci yan anam la ñuy dunde moom général Dia tuuti ko noon ujaaj yi muraake ko fa ndax jéppi guñ ko jéppi dañ ko doon yuuxoo ak di ko tifaar ay saaga muy maslaa naan leen kàdduy njàppandal yu jóge ci président de la doon jottali si boole leen ay ambulok yu def tuuti xaalis ngir ngeen jënd ci mburu ak saabo le témoigne nañu waaye ba ko gaa yi tëbalee wëqat la def moo ki ambalogam Moussa Ngom génn na àdduna mbooleem yéen kaay ñu xëy ndool xëy ñu ko tàggee observateur nañu waykat ba faatu na Sénégal bi ñàkk na kàddoom Le Soleil ne ko ambassadeur am kay ngay wax Moussa Ngom faatu na dimanche ci suba ma nga faatoo ci l'hôpital gannaaw ndokk lu mu am mu di malaise direct info nañu Moussa ngoom wan na ginnaaw scène bi Le Témoin ak Le Quotidien xëy bokk nu ñu ko tàggee mu di Moussa Ngom boroom artiste du daanu daanu na moom